Bienvenue sur Salam Vision. askan bi ñu leen di tey jàngatu bés bi ñu ko jëmee tey sur la crise universitaire xam ngeen daal yi kaw yi nekk fi université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fan yi passé rek dañ fa nemmeeku ay armes si biir néegu étudiants yu bari kooku askan bi ñu koy ñaawlu tey ñu koy koy ñaawlu ëllëg université dafa nekk euh, mbir moo xam ni wut xam-xam la mais du fitna université Ndakaaru 1960 ba léegi yàgg na am ay fitna ay étudiants ñàkk seen i bakkan ñii di xeex ñii di xuloo ñii di ŋaayoo keroog rek euh, le directeur du culte dafa mujjee assainir maanaam leeral setal foofu université bi di Ndakaaru boo ay booy ne ay ngannaay dafay indi ay jafe-jafe diggante étudiants yi loolu dañ koy ñaaw bi fekk Sonko ñëwee keroog di nemmeeku ay étudiants yoo xam ne ñu ñemoon ay jafe-jafe tey may dal benn étudiant muy euh, Serigne Saliou Guèye Serigne Saliou asalaamaaleykum waaleykum salaam monsieur Sakho maa ngi lay nuyu di rafetlu wàll euh, bu baax. jàngatu bés bi ñu ko jëmale tey sur la crise universitaire tey mën nañu wax ne tey li ñu gis université bu Ndakaaru université royukaay la université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru formé na ay cadre formé na ay président formé na ay ministre dans la sous-région un peu partout tey li ñu gis ñaaw na gis fa ay armes ay étudiants di xeex ëllëg mën na jéggi dayoo tey lan mooy sa xalaat si mbir moomu. Aliou Mbese Santo Diop bu Ndakaaru. waaw d' abord comme ni nga ko waxee parce que université day boo xam ne barabu sàkku kaayu xam-xam la te fépp dañ fay sàkku xam-xam yaakaar naa waree am ngànnaay bu ñuy jëfandikoo ñaar rek la war a doon bic bi nga xam ne ñoo ngi koy bindee ak kaye bi nga xam ne ñoo ngi ciy jël li nga xam ne moom la ñuy jàngal ñaari ngànnaay yooyu ñoom ñoo fa war a am hmm. comme ni nga ko waxee boo defee historique bi da ngay xam ne université dafa mas a doon benn barab boo xam ne acteur politiques yi dañ faa am accès trop euh, ñenn ñi di fa amal ay coordination politique ak yooyu dëgg la sax xëy na àdduna toll na foo xam ne au nom de la démocratie am na si yoo xam ne doo ko mën a bañ waaye bu mu tax ñu fàtte objectif premier wu université bi université bi du barab boo xam ne barabu politique la barab la boo xam ne barabu sàkku kaayu xam-xam la ku fay ñëw benn jéego rek nga fa war a dox si ñaax gone yi fa nekk ci xam-xam ñu gën cee góor góorgóorlu waaye boo mee ay jumtukaay yoo leen mën a dimbale nga dimbale leen ko mais warul doon benn lieu boo xam ne dañ fay régler ay compte politique ku am sa jafe-jafe ak yoon nga am sa jafe-jafe euh, ak euh, ku mu mënti doon li am solo mooy nga góorgóorlu jéem a xool mooy saafara loolu kon ñëw président Ousmane Sonko bi maa ngi koy ñaawlu bu baax ndax jàpp ma ne woon c'était le moment jàpp ma ne woon it c'était mm. parce que boo amee jafe contentieux ak benn sénégalais li am solo mooy nga góorgóorlu xool nu ngeen di régler seen jafe-jafe mais waroo jël étudiants yi di fa ñu parce que far dafa garaaw. Mm-hmm. fépp foo dem rek am na ñu ànd ak euh, diw am na ñu ànd ak diw am na ñu ànd ak diw. Mm-hmm. te boo fa ñëwee di nga am loo xam ne indi nga ko fa ci désordre bu ko defee ñooñu mën nañ nekk après di xeex rawatina mm-hmm. moment bi mooy fi ñu toll ni ma koy faral di waxee dafa am lu ñu intéressé boo duggee biir université. fi ngay tàmbalee grande porte bi. Hmm. ba ni ngay jeexalee faculté boo dem da ngay gis benn dispositif sanitaire boo xam ne teg nañ ko fa. loolu nag dafa doon jàngat parce que autorité yi fa nekk li leen ñor jamono ju ñu toll mooy nan la ñuy jàngee te ànd ko xeex mbas mi ba nga xam ne mbas mi doo ay jeexital biir université. Hmm. kon kenn waru faa ñu di fa dajale ay mbooloo. Hmm. ba mbooloo moom noonu di jur jafe-jafe. ñenn ñi di denc ay ngànnaay. Mhm. te loolu day loo xam ne maa ngi ciy euh, rafetlu taxawaay bi ci directeur bu COUD am. Mhm. ak service sécurité bu COUD bi yëpp. ndax loolu bis bu ñu ci góorgóorluwul woon fexe ko woon nangu xëy na mën naa jur yeneen jafe-jafe. Mhm. te di gën a ñaaxaat sama mbokk étudiants yi di leen wax ne. ñun dafa am lu ñu war. ab dëkk bu fekkee dañ ne day yaakaar ay ndawam. ngir mën a jëm ci kanam faaw ndaw yooyu gën a xamaat lu ñu naan le de la responsabilité gën a xamaat li leen war ñu ne ci te yëpp yoo yoo xam question la yu amul réew mi njëriñ. Mm. ñu mettre ko de côté te concentré wu sur l' essentiel. est-ce que yaakaar ni tey euh, à l'université war nañu mën a euh, xoolaat bu baax saytuwaat indiwaat ce qu'on appelle les assises les assises euh, les réformes universitaires li fa xew dafay gën di jéggi tey guddeeg bëccëg xiiroo ngaayoo dans les facultés un peu partout dans les amphis situation day gën di day gën di grave à l'époque il y avait des médiateurs les médiateurs de l'université kenn étudiant boo xam ni dañuy boo amee boo amee problème c'est le médiateur qui vient mooy rek la yenn détails yenn loolu tey gisuñu ci seen bopp monsieur Guèye manque de communication manque surtout de médiation waaw loolu moom daanaka dama koy euh, dama ci sax euh, rattaché wu ci seen émission bi ni mu tudd muy jàngat Ah. xëy na jàngat la boo xam ne benn constat la boo xam ne def nañ ko tey. Hmm. autorité yi nga xam ne ñooy autorité universitaires yi. ñoom def nañ constat boobu nag xool nañ jafe bi. Hmm. te it ñoo ngi nekk di liggéey. bu soobee yàlla rafet nañu njort ne danañ gën a góorgóorluwaat ci xoolal nan lañuy gën a ñagaatee université ba université lépp luy menace extérieur bañ faa am yoon. Hmm. ndax boo xoolee day barab boo xam ne rek encore une fois moom koy répété waat barabu sàkkukaayu xam-xam la. te kuy sàkku xam-xam dafa am loo xam ne daf koy soxla ci stabilité am na muy soxla ci tranquillité mm. ngir euh, la muy jàng mu mën cee yaakaar ndam ba loola mu mën koo xam bu ëllëgee mu jëriñ ci am réewam mm. kon loolu maa ngi ciy ñaar sama dina yaakaar naa ne ñoo ngi ciy góorgóorlu parce que boo demee faculté boo mënti dugg am na ay euh, association yoo xam ne mm-hmm. ñoo fa te mm-hmm. dañuy représenter les étudiants ci ah. instance de décision euh, ay amicale yooyu kon mm-hmm. amicale yooyu noonu ñoo war a gën a góorgóorlu ñeneen ñi ku am sa jafe-jafe xam ne dafa am benn hiérarchie bu nekk foofu noonu puisque les amicales ñoom ñooy représenter les étudiants. Hmm. ñu porter suñu combat au niveau de ces euh, amicales là bu ñu ko fa porter yi bu ñu ñëwee amicales yooyu noonu daal di transmettre message bi aux autorités compétentes ñu xam ne autorités yi fa nekk ak amicales yi nga xam ne ñoo fa nekk ñun ñoo war a booloo. ensemble ñu jàppante joxante loo ngir mën a am université bu baax. Hmm. boo xam ne benn jafe-jafe du ko loolu moom mooy li fa xew à l'interne. Hmm. léegi nag leneen li ci des comme lu jëm ci wàllum orientation bachelier. Hmm. foofu la mu ñëw moom. xam naa dañ koy bàyyi avec les autorités compétentes. tey wax nga ko si ñuy jëm avant surtout euh, l'orientation de certains bacheliers. dañuy dem ci yeneen université comme jàngat la. y a l'université Cheikh Anta Seck université Assane Seck bu Ziguinchor. Euh, de Kaolack d'autres universités ba léegi ñoom ñi ngi ñaawlu yenn euh, manque jumtuwaay ba UGB partout à Thiès les étudiants ñi connaît di di décrier euh, les sociétés étatiques lan mooy sa xalaat si mbir moomu yenn jumtuwaay xam ne université yi dañ koy manqué souvent loolu li ñu ci xalaat rek mooy comme ni nga ko waxee boo population sénégalaise bi day population boo xam ne dafay accroître te loolu moom ci àdduna bi yaakaar naa ne Euh, dëkk boo dem rek ñu yëpp da ngay constater loolu kon puisque bachelier yi ñoo ngi gën a bëri at mu jot rek dañuy gis ne bachelier yi dañuy bëri mm-hmm. faaw rek état bi gën a góor góorgóorluwaat euh, gouvernement bi ci boppam gën a góor góorgóorluwaat ci xool nan lañ mën a def ba am ay jumtukaay mm-hmm. moo xam ay université yu ñuy tabax mm-hmm. moo xam ay équipement buy nekk ci moyens fexe ba étudiants yi ñu fay orienté ñu mën a am ay moyens yoo xam ne danañ ci ay jumtukaay yu mën a liggéey. Hmm. beneen bis des it mooy. Hmm. ñu fexe ba étudiants yi am bac. Hmm. ñu góor góor lu xool nan lañ leen mën a dimbali. ba ñu orienté te lu jiitu orientation yi tamit ñuy def une politique de sensibilisation. di dem euh, ci école yi ñoo ngi koy def à travers euh, euh, yenn commission d' yi. ñoo ngi dem ci école yi avant euh, l'examen di euh, expliqué étudiants yi yooyu mais je pense que dañ ko war a gën a renforcer. Mm-hmm. fexe ba étudiants yi ñu préparer leen parce que da ngay gis léegi étudiant boo xam ne bu amee bac moom day jàpp ne ah, am naa bac rek waaye garaawu daal mën naa dem toog parce que du am gis lu dal xelam dëkk. Mm-hmm. gouvernement bi moom ciy góorgóorlu mais góorgóorlu gi dafa des. faaw ñu gën a jàppaat. Mm-hmm. fexe ba étudiants yi bu ñu amee bac ñu mën leen di leen orienter. bu ñu leen orienté fa ñu jëm ñu mën fa am jumtukaay nécessaire yi ñuy soxla mm-hmm. ngir mën a mën a mën a mën a jàng ñoo ngi ciy góorgóorlu mm-hmm. waaye ñoo ngi leen di gën a ñaaxaate ngir ñu gën cee góorgóorlu waat yow en tant qu'étudiant yan solution dañu war a tey euh, mettre en place pour kenn étudiants yi say jeexi jaaxal waaw solution yi ma ci gis mooy Euh, bi ci jiitu mooy ñu am ay jumtukaay. parce que avant ngay ñëw ci universitaire niveau universitaire dafa am yu ko jiitu. Hmm. mooy boo xoolee Sénégal am na ci ay dëkk yoo xam ne xëy na jumtukaay yi ñu war a am dëgg pour jàng bi jumtukaay yooyu noonu des na. yaakaar naa ne loolu lañu war a gën a góorgóorluwaat fexe ba am jumtukaay bu dee ay université hmm. ñoom ay université yu doy. yoo xam ne képp ku am bac danañ la mën a orienté nga dem faculté jàngi wala même bu dee dañ lay orienté université virtuelle yi université virtuelle ñu gën koo jooyantewaat fexe ba étudiants yi di sawar comme ni ñuy sawaree jàng ci faculté yi mm. yeneen étudiants yi di sawaree noonu ngir mën a dem jàngi ci université virtuelle traitement bi yëpp ñëpp daal di doon benn ñu gën a xoolaat tamit ci perturbation yi am ci universitaire parce que boo xoolee Sénégal année universitaire bi daanaka day gudd. Hmm. day jafe sax ñu respecté calendrier universitaire bi. loolu it war a gën a bàyyiwaat xel la te xam ne euh, étudiants yi nekk fii faw ñu góorgóorlu jàppale leen ndax souvent da ngay am sa morom sax da ngeen di amandoo bac fii mais moom souvent bu demee à ñëwaat mën na laa raw sax ci wàllum wàllum wàllum jàmm parce que foofu dañuy respecté année universitaire yi lépp jaar yoon fii dëgg la dëkk bu bu xaw a néew doole la. waaye góor ñu góorgóorluwaat gën a defaat éducation priorité. Mm-hmm. nga xam ne éducation moom rek moom mooy di mën a soppi ab dëkk fexe ba dëkk bi ma a mën a tege ci ci yoon baax ja loolu daal gis-gis googu laa ci te tey jàng tey mu ngi jëm sur la crise universitaire. daara yi kaw yi xam ngeen ni euh, barki dem rek wàcc nañu si mbir yi di wane seen naxar huit mille six mille huit cent étudiants yoo xam ni dañoo am seen bac bari léegi kenn orienté wu leen. Euh, d'après certaines sources. université yu bari fees euh, nañu tey yaakaar na tey monsieur Serigne Saliou Guèye en tant euh, état bi jamono ji war na mën a euh, orienter tous ces bacheliers ñii ngi dëkk si région yi ñi dëkk fu sori dans certains départements ñi ñu moyen lan yan pexe la ñu a tëral pour mën a mettre sur place une politique objective à l'égard de ces étudiants non orientés waaw loolu moom comme ni nga ko waxee en tout cas mission régalienne bu état bi la parce que éducation service public la. Hmm. boo xam ne état bi moom moom moo ko warlu ak ay citoyen kon képp koo xam ne rek jàng ba am bac. Hmm. faw ñu góorgóorlu xool fu ñu la mën a dugal nga dem hmm. loolu nag li ñu ci war a def parce que boo xoolee année yi ñu génn da gis jafe-jafe yooyu am édu bachelier yoo xam ne du ñu leen orienté. wala ñenn ñi balaa ñu leen di orienté sax day xaw a yàgg amoon nañ fi solution daan dem ci privé bi. Ah. ak ñi ñu génn boo xoolee. xëy na loolu xaw naa dàkk gis étudiants yi ñu orienté ci privé bi daanaka lu ci ëpp ñenn ñi dañ leen orienté ci université virtuelle hmm. ñeneen ñi ñu yóbbu leen euh, ci yeneen faculté yeneen région yi yeneen université yi nekk ci région yi waaye daal mooy ni ma ko waxee sànq rek faaw ñu gën góor góorgóorlu hmm. ci gën a amaat ay daara yu kawe yu doy yoo xam ne képp koo xam ne am nga ba danañ dafa mën a yóbbu nga dem jàngi hmm. waaye bu doon responsabilité gouvernement rek mais étudiants yi jàngi faaw ñu def seen choix choisir mën a poursuivre seen i ci daara yu kawe faaw ñu gëm ne ñoom seen choix la seen bëgg-bëgg la bu ñu demee détermination bi mu laaj ñu am ko ci ngir mën a am réussite ci loolu mais souvent dañuy gis ñenn ñi dañ leen di orienté mais bu ñu leen sax bu ñu demee rek daanaka duñ fa xaw a yàgg dëgg la yenn saa yi condition yi ñu fay fekk mooy xaw a jafe mooy xaw a metti ba dañuy jàpp nii lii du leen garantir benn réussite waaye lu mën di rek faaw ñun ñëpp ñu bokkandoo muñ te xam ne réew am na foo ne bu fa tolloo ay jafe-jafe du ñu wër rek di ŋàññi réew mi waaye kenn ku ci ne la nga mën a bàyyi. ngir ñu boole loola réew mi mën a jëm ca kanam. Hmm. loolu la ñuy def étudiants yi ñu dimbali leen. Hmm. orienté leen. c'est mën a dem jàngi parce que loolu devoir gouvernement bi la. Hmm. waaye euh, bu ñu demee ñoom yenn conditions yi nag mën nañ ko muñ ñu muñ ko. yenn li si dese ñu gën ci góor góorgóorlu fexe ba mu jeex parce que mbir mi moom. du xëy xëy rek jàpp. ab euh, processus la bu mu yàgg. lu ñuy gën a dem rek ñuy gën a def ay jàngat di gën a gis jafe-jafe yi. di xool nan lañ koy gën a saafara. voilà kooku moo doon Serigne Saliou nekk euh, un jeune de Rewmi un étudiant à la euh, à l'UCAD monsieur Guèye balaa ñuy tàggatoo tey jëmale ko si jàngatu tey bi lan ngay war a ñaaxaat étudiants ñu gën a fagarwaat sur le Covid dugg na fële au niveau de l'université Anta Diop yàlla incha allah musal en tant loolu moom maa ngi ciy profité di rafetluwaat euh, taxawaay bi nga xam ne autorité universitaire yi am nañ ko moo xam université Cheikh Anta Diop bi nga xam ne foofu laa nekk. parce que dispositif sanitaire bi. Mhm. Euh, installé nañ ko fa te am na benn protocole boo xam ne ñun ñëpp ñun ñoo ngi koy respecté. Mhm. booy dugg ci école bi ah. am na gel antiseptique yi mhm. booy euh, dem da ngay sol sa masque euh, di nga jël sa température yooyu yëpp day loo xam ne. étudiant bu ko gis rek war a góorgóorlu te xam ne mbas mi moo ngi fi te lu ñu war a gën a xeex la ndax université boo xoolee ni mu bindoo. faaw nit ñi góorle leen moytu. ndax xëy na mbas mi bu fa duggee rek mën naa gën a indi ay jafe-jafe ci biir am naa ay cas yu ñu fa doon lim mais jàpp nañ ne protocole sanitaire bi ñu fa teg bis buñ ci gënee góorgóorlu respecté ko danañ gën a mën a xeex mbas mi nit ñi tamit ñu mën a respecté autorité. Hmm. parce que bu fekkee dañoo bëgg nekk ci réew moo xam ne dañ naan feebar am na kii di def lu ko neex wala keneen def lu ko neex loolu du sotti duñ mën a xeex feebar. Hmm. faaw ñun ñu góorgóorlu. Hmm. fexe ba xam ne ñi nga xam ne tey dañoo bàyyi seen i kër Euh, pour seen njaboot gis leen jafe-jafe la pour ñu nelaw sax jafe-jafe la muy yi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey moo xam public beeg privé beeg yëpp ngir mën a xeex mbas mi faaw ñun tamit jeunesse bi mën a gën a góorgóorlu hmm. te xam ne combat bi am na nu ñu koy porter rek euh, mbas mi yàlla mën nañu cee te it euh, ñu gën a ñaaxaat suñu famille yi nga xam ne ñoo ñoo ngi fay jugee parce que daanaka dañuy jugee ci ay kër di dellu siwaat ci ay kër hmm. faaw ñu ñaax ñëpp respecté protocole sanitaire bi te ñaan yàlla may ñu ndam ci ci ci mbas yi ba ñu mën a delluwaat ci suñu activité. Serigne Saliou Guèye euh, Salam Vision mu lay gërëm la sant. jërëjëf waaw. maa ngi sant waa Salam Vision yéen ñëpp ci opportunité bi ngeen ma mm. may. Mm. ma mën a wax ak sénégalais yi. Mm. ndax bi ñu ñëwee ni ñu gisee kër gi ni mu bindoo. Ah. dal na suñu xel bu baax te gis nañ ne. am na ci lu leen ñor. mooy jafe-jafe yi réew mi di jund ngeen mën a xool nu ngeen di jottalee. Mm-hmm. suñu baat askan wi ba askan wi gën a xamaat taxawaay biñ ci war a kon ñoo ngi leen ci sant di leen gërëm te di leen ñaanal suñu boroom gën a yaatal kër gi. Mm-hmm. ba li ngeen ci namb yëpp ci liggéey ci réew mi. suñu borom may leen ci ndam te lépp jaar ci ci yoon. nga xam ne foofu la war a am. voilà jàngatu bés bi jëmale ko sur la crise universitaire il est bachelier non non orienté dégg ngeen jàngatu Serigne Saliou Gueye du Tiyon à l'université Anta Diop bu Dakar di même responsable parti politique réew mi fi diwaanu Pikine ak li ko wër mbokk yi jërë ngeen jëf beneen yoon incha allah